ba heure jënd jógal sa waay heure bu jot na bay góor bu nelaw yenn heure yi jógal ah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith yow gaañ bi jàpp di la pawnal di di di la final. ay rang. di la zosé. kiririn kankan kum. kanaaroo kanaaroo. rang rang muy abonné. waag waan ay jàmbaar. rang. cinq cent. ten thousand maa fi la. kang from laaxira. di pali. au référendum day jiir. xanaa neex. moom xanaa kenn nekk fi waaye ama boobu de maa ngi lay woo maa ngi lay woo boobu tey wuyu woo foo nekk fan sa app sama appel diimi mi ngi fi diimi fi laajte kenn nekk fi nekk fi ko naa fii kenn nekk dong jël demal demal. demal nekk fi. maag yow dong fi nekk fi. dugg si naa laajte naa xool naa fi yëpp naa fi yëpp nekk fi pël nekk fi xool naa fi yëpp yow ci kër gi looy la eh, man bu ragal di man maa war a tiit xool naa fi yëpp nekk fi doo rek la indi lu ma la benn problème fii laay toog kenn nekk fi eh dimbali ma bi ñu ma ne leen dañu ma leen doon pël laa doon nekk fi ma toog fii di ko fa xaar sama doom nga eh foo xuuñee yow génn génn ma fii laay toog kenn nekku fi. boo génn man may wàcc daal amal la léegi. waaw baax na man léegi maa ngi dem après kon dina après dinaa ba may yoo xam ne yow doo xaritu pël ngay ànd ak moom guddeeg bëccëg subaa ngoon ba tey ngay mbaraan doomu bu tuuti bi hmm? am leen jom maire yoo xam dañuy bàyyi bëgg xuuru xale rek lii dafa ñaaw topp ci xale yu ndaw yi di leen rasaatu bi yor seen ay appartement ak seen ay 4x4 fal ay xale yu ndaw ñu leen di panal guddi ak bëccëg xale du ñam mag mag du ñam xale. amal jom am leen jom maire yi ay waay am leen jom yaay booy. demal demal demal rek. yow bàyyi ni nga bëgg a jàpp sa adduna daal nii dugal génne mbay puy sa life daal lii yow daal li nga bëgg a dund nii. yow kii di ma télé Sénégal télé Sénégal di abonné. yaa yaa mën duul yow nekk na duul rek ngay def rek muy bàyyi ndeyu fen. maire yi nga topp màggat yi yow gisoo maire bi xanaa